cette crise aussi am beneen volet un volet économique yaakaar naa dit ñi ñu am parti bu rëy bu ñu taxaw économie Sénégal di teel a yeewu di guddee tëdd di liggéey bu contribution au développement réew parce que naa son excellence président Macky Sall a dit wax leer dafa capital humain c'est-à-dire nit ñi askan wi placé au cœur de son programme de développement Nous renforcer le développement du capital humain mooy nit ñi gis seen bopp yokk seen condition de vie améliorer ko politique yi mu teg yëpp bu ci nek rek boko xolé ci chat ba rek limi mu visé mooy fexe ba jigen ñi ak askan wi gis seen bop baax ci nga xamne mom lay liggéey pour Sénégal jëm ci kanam jigen ñi am ci taxaway bu reuy nak ci liggéey koy bu am solo waxna ko légui le secteur informel représente une grande partie de l'économie de notre de notre pays ça de ni nga xamne dañu liggéey te formaliser wuñu defe patch bu am solo lañu ñuy liggéey te ñooñu nak ñoo yor kër yi jigéen itam ci ci wàll boobu itam jigéen ci am taxawaay bu rëy parce que boo xoolee tey informel jigéen ñi dans tous les domaines yooyu laaj de l' informel jigéen ñaa ngi ci biir tey ñu ngi jógee quai de pêche Hann jógee quai de pêche Yoff dem salon de coiffure ñoo fii tase fa ak waa quai de pêche Soumbédioune ñoo ñëpp boo fa dem ay jigéen nga fa fekk te boo demee ci marché yi jigéen ñi ngay fekk ñooy jaay jën yi ñooy jaay légumes yi ñooy jaay soble bi ñooy la table yi wër marché bi ñooy jënd soble kilo soble tas ko di ko jaay dina kilo kaani def ko ay mbuus di ko jaay ñoon ñoo jaay géej ñoo jaay yéet kon yaakaar naa jigéen ñi buñ ñee Sénégal économie def naa lu am solo lañu waaye jigéen ñoo liggéey liggéey nag doy woñ ko lu yóbbu seen biir ay kër jàppale seen ay borom kër jàppale seen njaboot fexe ba ñu am koom fexe ba améliorer seen condition de vie moo tax yàlla dogal bi mbas mi duggee Sénégal présent le programme de résilience économique et sociale fexe ba nit ñi résilient face à cette crise loolu mooy nit ñi jafe-jafe yi nga xam crise bi indi ko ci réew mi ñu mën ko taxaw mën faire face xeex pour que loolu bañ leen naax saayal bañ leen naax saayal seen santé seen wérgu yaram mu bañ cee mu bañ a propagé dans tout le Sénégal loolu yàlla dogal ñu liggéey ci liggéey bu rëy ñun en tant que jigéen def sensibilisation parce que feebar la boo xam ne amuñu fa amuñu garabam amuñu vaccin waaye mën nañu prévenir cette maladie prévenir mooy def prévention fexe ba mbas mi du law ci réew mi loolu nag jigéen ci parce que jigéen ce rôle de sensibilisation et de communication jigéen ñu en première ligne parce que nous sommes une ci famille yi tey boo demee koñ rek groupement de femmes bu fa les femmes sont organisées pour porter cette sensibilisation donc jigéen ñi remercie leen di remercier bu di leen parce que y a li ñu ki def ñun capsule li ñu ki defoon remercie remercier en passant madame Nicole Gakou parce que participer na woon ci une femme leader engagée pour les femmes nous koy en passant aussi poste que le président jox bu du conseil d'administration de l'ANSD mu un outil très important dans l'économie parce que nous avons une statistique qui nga basée pour définir les politiques de notre pays comme madame la présidente nous les le saluer baax remercier C'est teewaay sa liggéey nous depuis 30 ans nga nous avons ñi ñu lay remercier bu baax di la félicité di wax aussi mooy jigéen aussi

petite unité économique yi ngeen am di liggéey parce que vous êtes tous des entrepreneurs ay ah, da ngeen am ay initiative di liggéey nangoo sonn waaye boo xoolee jeexital loolu rek dafa am dara lu koy dëgg la nag dañu nekk un pays en voie de développement jafe-jafe bi am vraiment ngeen vulnérable am jafé jafé kon bu xaas duggee moo am na feneen waaye gor gorlu ba li ngeen jox utiliser ko fi ngeen ko joxee parce que loolu moy loolu moy développer loolu moy yok jigen parce que jigen bako renforcer automatiquement économiquement mu am doolé mën gënal gisal ma mën a demal boppam

boole ci képp koo xam ne rek ne am nga xam-xam mën nga indi sa contribution ci li nga xam ne moo dugg ci réew parce que une guerre nationale c'est une guerre nationale tout le monde ñoo ci bokk toutes les bonnes volontés les experts yi nekk ci domaine boo mën nekk rek war nga apporter sa contribution parce que nag réew mi bu ko feebar bi duggee na mu ko war a duggee defe naa dinañu am leneen lu ñu tal lul économie mu teg en première ligne la la la prise en charge la réponse sanitaire def ci ay mesures barrières ànd ak nit ñi de vulgariser sensibiliser Nous def une sensibilisation une sensibilisation vraiment très très très efficiente au niveau de mon département Les ñi qui ci à bi yëpp fu jigéen mën nañu fexe ba gel am masque am sa li nga xam ne mooy yi nga appliquer les mesures barrières en passant maa félicite toutes les femmes qui sont engagées au niveau département Dakar voulais tout madame la ministre Anta Sarr Diacko nga xam ne on a pu collecter un million de masques distribués dans tout le Sénégal fu nekk fu jigéen ne Sénégal fekk na jox la masque pour nga protéger contre cette pandémie madame la ministre yaa jigéen ñi ngi àndal ñëpp maa remercier baax ci au niveau département Dakar ci sa liggéey ak sa engagement ci projet boobu. bu ñu passé crise sanitaire bi la crise économique moo am parce que jigéen ñi wax nañ ko léegi dañ demoon ci salon de coiffure tëj ko tëj na pendant deux mois ubbeetul xam nga ko ubbiwul pendant deux mois liggéeyoo parce que nag bu une crise sanitaire maladies contagieuse, defe naa ñi nekk ci salon de coiffure elles sont impactées parce que mënatuñoo liggéey mais charge yi ñu amoon dara du les couturières la même chose ñi nga xam ay services lañu def nga xam dañu am ubbi ay boutiques di ay tissus di jaay ay dara def ay war ñoom ñëpp elles sont impactées parce que crise dafa taxoon état d'urgence pour ku ne toog sa kër liggéeyuloo. dem les femmes qui sont dans les quais de pêche aussi di jàmbaar lool di liggéey bu baax di sonn lool ñoom tam ñu impactés par la Covid 19 parce que dafa wóor ne boo jigultul liggéey yi amatoo ressource defe naa dootala jaay jën.

il est au service des femmes de la population mais particulièrement des femmes di ki liggéey lu am solo di jàpp te téye bàyyi te li mu jàppee nag daf ci dugalaale yërmaane bi nga xam ne moom la ci président Dougal pour jigéen ni bañ vraiment financement yi nañ jox mu financement yoo xam dafay diis mu jàpp ànd ak ñun jàpp nangu nag ne jigéen ñi bu leen joxee 500000 francs 250000 sous forme de subvention beneen 250000 francs sous forme de de de financement am benn intérêt Comme monsieur le directeur général du IMSEC maa remercier vous pas de la santé.

xam ne lii xew Sénégal moom relâchement bi ëpp na ëpp na te jigéen ñi nag xew boo dem jigéen ña fay ne 90 pour cent jigéen ñi nga fay fekk s'il vous plaît xew moo dem Sénégal jigéen ñi 90 pour cent jigéen ñi nga fay fekk parce que góor ñoom bu ñëwee dañuy dem ngal la maa ngi lancer un message à toutes les femmes du Sénégal relâchement bi ëpp na Sénégal parce que gis ngeen pandémie fu mu jëm gis bu ñu continuer nii ñu suñu bopp ñooy waxuma impact waaye dañu dañu nax saay

sama département nak yalla dogal ci crise bi ñu indi ci ay volet. yu am solo premier volet bi moy appuyer l'aide d'urgence de son excellence le président Macky Sall nga xamné 109 milliards la dougal 1 million 100 000 familles ont été appuyées par son excellence le président Macky Sall dans son programme d'aide d'urgence alimentaire képp kuy jigéen képp kuy famille ku le Sénégal parce que 1 million 100 000 familles ça représente presque 10 millions de personnes parce chaque famille à peu près 8 à 10 personnes lañu loolu président moo def fi am loolu nag bu jàppale ñu famille tax mu defal ñu kon jigéen ñi ñu ngi koy remercier en passant benen deuxième volet bi premier volet mon volet sanitaire wax naa ko sànq 64 milliards la ki def lepp pour ñun la la relance économique des entreprises c'est nous parce que ñun entreprise bu ñu relancé ñun lañu relancer parce que ñu ñooy entreprise yi ay doom ñoo ci nekk suñu ay jëkkër ci nekk kon 1000 milliards c'est destiné aux femmes du Sénégal donc loolu defe naa bu ko dugalee té néna naa tamit amul benn couche Sénégal ak fo mëna a ak ko mëna a fekk ak bor boo mëna fété féete présent ñewul ci yow

loolu xam nga réew mi kon dafay war a taxaw donc relance boobu lu am solo la moo tax ma ngalla bu ñu leen joxee financement yi dëkk leen seen activité yi liggéeyaat leen pour que loolu mu généré parce que suñu réew nag bu demee ñun la bu taxawee itam ñun ñoo moom suñu réew ñoo moom Sénégal ce patriotisme doit être doit dafa ngeen nit ñi xam ne réew mi ñu ñoo koy defar bu ñu ko defaree mu defar bu ñu ko yàqee mu yàq ñu particulièrement jigéen ñi kon ñu ngi leen ci félicité di leen encouragé yaakaar naa ñun ak yéen benn lañu Nous avons fait des dans les régionales de 500 et quelques millions déposés dans toutes les communes du département Dakar financer. on a fait 52 communes de la région de Dakar qui ont am qui parce des kits alimentaires. mais les femmes victimes de violence ñi cancer. Ni envers sida ni victimes de violence comme nous avons dit, léegi nga des femmes période de violence parce que conditions yi moo violence yokku ñoo ñëpp équipe ay alimentaire renforcer le programme d'aide d'urgence du président de la République Nous avons une belle facette muy relancer l'économie du secteur informel particulièrement particulièrement les femmes